mun la jema a tooxal ba nopi nga nan dang koy ibir sa buntu kër di ko naan kaay añ si kaay reer si kaay ndéegi si non il faudra à un moment donné ñu jël suñu ay responsabilité gis nga ñun li ñuy dund Walfadjri mënuñu ko wax li ñuy dund dem na ba kenn mënatuma pratiquement jot ci sama numéro téléphone parce que tout le temps sa téléphone mëno ko bay mi sonné dañuy jël sa numéro téléphone si lañuy commencer non commencer nañ ci ay photo jël say photo di la waxal du n'importe quoi dara du len ci fekk ñukay def sen compte ñu koy identifier mais dara boo euh, euh, déposer plainte du mujj fenn ñu paré ci lool jël sa numéro téléphone jox ay personne di la woow ba ma jëlee numéro yoy di ma woo ak euh, message yi bamay wut sax huissier bo xamantene ni da koy da koy day de transcription pour ma mën a ko boole ci plainte ben huissier nangu ko jël parce que y avait tellement de messages tellement d'insultes que kenn amul won en fait jot ak sax kersa sax moo dul may ngay tok dina naan da ngay reprendre ay insultes naan da ngay def transcription bi ay saga yu gëna ñaaw bu gëna ñaaw nga ni bii nga déposé plainte mu jul fenn ñu paré ci saga ak yu ñu mel dem ci agression physique jël sen pompe pompe mako ko ma bu nit ñi jugul won taxaw euh défendre ma bis bobu non peut-être doto leen déggati ñuy wax wax Pape té te du mujj fenn. alors ci situation yoy yëpp ngay dégg ñun le Pape ndjay nga paré ci Pape ndjay ñun le Thioro Mandela nga paré ci Thioro Mandela ñun le Cheikh Bara ndjay ñëpp xam nañu ni dañuy procéder par élimination.

nekatuñu sax ci ay adversité parce que bu njëkk ba dañ wal Walfadjri adversaire mais léegi dañ japp ni wal Walfadjri ak ñi fi liggéeyee seen ay ennemis nañ motax ñu ñuy traité de sorte buñ ñu la nuwee dañ lay yobbu euh, chômage parce que nekatu sax chômage technique dañ lay yobbu chômage dañuy licencier ñu fa nek ñaata njaboot ñom ñoo nara tay tey nek ci ay jafé jafé tout simplement parce que dañu def seen liggéey correctement sa saagawuñu fennuñu sàccuñu alal alalu kenn nous, non tout simplement parce que waxo len arrangé parce que tout simplement da ngeen génne li xew ci mbedd mi ngeen wax ko da ngeen am ay analyse yo wu ok, ñu ok nañ ci situation nga ngay ngay je crois que jamono ji li das moy ñu defante ak ñom gatsa gatsa bi président Ousmane Sonko di woté jotna quand même ñu fekki fekki ko si té ñu bàyyi li nga xamante ne mooy dañuy jéem a sauver ay apparence apparence fii nii lii ñaaw ñaaw na ba noppi mënatuñ fi sauver dara tëj nañ la une semaine tëj nañ la euh, deux fois une semaine bu ma juumul bii ñu jël tëj la un mois te notification mi ngi doogaay wàcc tey tey tey tey parce que da nga nekk di def euh, conférence de presse ñooñu dañu lijjanti démocratie ñooñu dañu lijjanti lu légal ak lu légitime seen yoon newu ci li ñuy def Ousmane Sonko preuve la pour ku ne bu ñu paree ci liquidation Walfadjri yow moom toog di jaay naafeq di naan li ñuy def seen liggéey la barki démb ba ñu coupé euh, connexion bi nekk nga ci victime te pourtant dafoo waxoo c'est-à-dire ñoom daal lu leen neex nañuy def te dara dara dara du leen ci fekk da ngay def sa live ñu ni ok kaay ñuy xool lan nañ la war a mën a ci live bi nga def donc je crois que vraiment euh, heureusement pour ñoom que man nekkuma responsable biir Walfadjri ndax bu ma ko nekkoon wallahi azim doo fa dégg seen baat ba bis bu ci situation normale parce que gis nga nit aussi il faut ngay nangu di assumer euh, ses positions RTS dañu Nek assumer ses position di am émissions tendancieuses doo fa dégg voix opposition bi censurer donc jot quand même ñi nga xamante dañu féetewoo askan bi ñu censurer ñi nga ne wax duñu wax ministre ministre lu mu doon askan bi di sax say di nous di wax ay camion wala ay L200 ñuy de nervis ñuy tok de way la explication donc je crois que vraiment euh, li ñuy dund metti na ñun ñi man bamay à Sen TV di nous na Sen TV ans ben yon ñaar peut-être lay am yenn jafé jafé mais bamay may wal Walfadjri ba tay Nous jafé kasse ngay dëkk té fenn parce que da ngay naan da ngay assumer ba ngay ñëw fa nga la fi mais ñun duñu ay délinquant ñun duñu ay sàcc duñu ay irresponsable ay kilifa nañu yu yor seen alal sax di ko investir ci biir réew mi mais comme léegi nag réew mi nangootuñu ñi nga xamante ni dañuy def seen liggéey te dañuy gëm réew mi bëgg réew mi dañ leen bëgg jël di leen soppi di leen def ay délinquant mais ngeen waxal seen bopp ci jamono jii ñu toll politiquement correct nañ ko teg fële nañu dund comme ñoom niñ ko bëggee. œil pour œil oxo pour gatsa gatsa dund ak ñom comme dañu couper signal parce que li ñu bëgg mooy réduire Walfadjri en silence ñun nañ leen réduire ñom en silence man japp loolu première mesure bi nga xamante ni mesure bu ñuy jël ci fi ci direction Walfadjri mais bu ma déggee ñun ne pencoo ci kalaw wax nañ fa tok wa benn Bokk yaaka wala ñi nga xamante ñoy defaan président Macky Sall ñu wax nañ fa tok légui bu ñu toogee di la expliquer que way pap ndjay dafa irresponsable dafa tenir ay propos yu gravissime motax mu ne ci kasso bi que oui euh, dañu suspecter Bara ndjay mu def ay mbir yo xamante ni yu grave la moo mu ne ci kasso bi ñu ñu tok diko ko déglu ñu gëm lo que dañu nekk ci institution dañu nekk ci ay institution ci état ak lu ñu mel ñun ñu tok diko ko déglu je crois que vraiment nous nous nous ñu responsabilité Nous nous ñu jël responsabilité voilà